bi nga xamante ne déglu naa leen man booba ñu tudde ko ko ma ne naa ko bàyyi ci loxol sëñ Tuuba rek martab li ma ne dama ko lijjanti ba ma demee nag ba mu wóor ma ne liggéey sëñ Tuuba taxu leen a jóg sopp sëñ Tuuba taxu leen a jóg ñu fekk nag baalam sëñ Tuuba mi ne ñu tabb ci seen biir di lay jéem a génne nag ci xisbullahi gi nga xam ne ku ànd ak sëñ Tuuba bokk nga ca te alaa inna xisballahi humul muflihuuna ba gënee ni jëme ci siis bu siis bu saytaani bi nga xam ne alaa inna xisba saytaani humul xaasiruuna kenn nettaliwu ko kooku man dutuma man la may wax ci wax ji nag bi ma ko naataa def am naa xam-xam bu ma wóor ci ne liggéeyaluñu sëñ Tuuba jëmuñu ci sëñ Tuuba nekkuñu ci lu neex sëñ Tuuba loolu moom am naa ci lu ma wóor yëg naa it ne seen doxin ni ma leen ko mën a misaale mi ngi mel ni jaan ju tabbi ci suñu biir di dund ci suñu naq ngir bëgg a mën a mat ba mat am saamaan moo xam ne ku mu ku mu ku mu mat nga dee ku mu buuf nga silmaxa mu door a tàmbali am liggéey bi loolu nag lu loo xam ne amal na ñu njëriñ ñun moo tax bu loolu amee bi ma waxee communauté bi ba noppi laa daal di topp coo nag jaamu yooyu nga xam ne ñoo tàbbi ci suñu biir bëgg fa réew li mu booloon jëmee liñ ci loo xam ne neexut yàlla neexut yonente bi neexut Sëriñ Tuuba alhamdulilahi rabbil alamin yàlla ndogal na jaan yooyu commencé nañ ci dee kon nag alhamdulilahi rabbil alamin li ma taxoon di wax mooy loolu damaa bañ rek lu ñu yàqal noonu waxuma ngir lak yoon wi ci boppam lan na ngir yoon wi moom boroom a ngi fi toog téye ko loolu nattabliwuma ko boroom moom yorloowu ko kenn moo ko yoral boppam kenn mënu cee def loo xam ne àndu ci ngir moom nee na kenn mënu maa fexeel ngir boo ma dee fexeel dafay mel ni gunge goo xam ne dafa dugg ci ak nit fekk ca njaccaar bëgg caa dee juli mu gis kooku kon naago na nu googu wàll ne ku ko mën a yàqal amul waaye nag sunu njëriñal bopp moom yaakaar gi ñu ko yaakaar bu ñu demee ba fa moom lanu lanu yaakaaram ci ñun lépp ñu teg ci suñu loxo loolu daal mooy li ma bëgg moom la moom a tax di wax waaye leneen taxu may wax moom yoon wi lim ci war a def lépp def na ko ci ni mu ko war a téye téye na ko bi jaan yi ko doon bëgg a yàq rey na leen yëg yim leen doon reyee it mi ngi ci loxoom du ci jóg yoon na wax ko saa boo xamante ne luy bëgg a yàq jógati ni dana ko dana ko saafara loolu naa tab liwuma ko ramal ilahu lisi laa say a yum gisuhu sax yi wa man amal lu rii xaana man haahu xamaa jihaati yi mux nit xad ma dettu yeddi lahu wa axna bihi kulli yu ahlaa ilmi janaabi lil jannati rafiuhu bil mustafa xayri man abdaahumu waaw muhammadun xaadadi ma laa yafuusu bihi xayri min allahi man abdaa wa axfaahu فرحت خير الورى في خدمتي وله قتلي بتمليك باخ فيه صفاه أقسمت بالله إني للنبي أبدا قل وحب وما آباه ياباه نبينا المصطفى خير الورى خير لي في كل شيء وما ياباه آباه kon nag kooku kuy wax ci mbirum sa bopp tax ngay wax dama bëgg lu jub te amee melaw bëgg mbirum bañ moo mënal dara te bañ amee melaw xob ba seytaane man dinu mën a fat dinu yóbbu fenn li nga xam ne moom laa wax ci communiqué bi waa réew mi dégg nañu ko li nga xam ne moom lay dénkaane itam waa réew mi dégg nañu ko ñu nekk ci bitim réew nag te yaakaar sëñ Tuuba te fu mu ne neex ko fa ñoom laa bëgg ñoom itam lii ma wax ñii rek ñu xam ne ñoo ko bokk bokk yaakaar sëñ Tuuba ji bokk ji jub ñi mu ko dénkaane ñu sàmmee ko nit lépp lu ñuróog lii tax may wax tey nag fu ñu fi doxee ba yegg si foofu ci ñoom it nañu ca teey te ànd ak seen taalibe ñoom téye ko te xam ne la leen di jëriñ tey di leen jëriñ ëllëg ci seen taalibe googu ci la ci la nekk ku ñu indil weneen melo nag wala leneen lu muy wax ci seen Tuubaa lu bokkut ak topp leen yàlla jug leen liggéey leen bàyyi leen fen bàyyi leen jubadi ku leen wax lu bokkut ak loolu mu ngi leen di wax lu sëñ Tuubaa wax lu wul kenn maa ngi leen di nuyu nag di leen gërëm di leen yëgal ne sama dénkaane bii dama koo wax rek waaye mooy li sëñ Tuubaa daa santaane démb lu bëri ci démb léegi nag maa ngi ñaan yàlla mi dara rasul te lépp nekk ci loxoom mu dimbali mu yërëm nu sutural nu may nu ak way ci ndigali sëñ Tuuba yi ba mu mën cee sax ba fekki ko ba mu ko fekkee ak cant rek la nu fa fekk ci moom dara ci yaraa nga bañ noo topp maa ngi koy ñaan ñaanal waa réew mi di ko ñaanal ñi nekkal sëñ Tuuba ci bitim réew tey ñaan yàlla saxal nu ci loolu saaxiran wa baatina yàlla nu yàlla boole dimbali te mboolem koo xam ne ci Serigne Touba nga yaakaar sa dénkaani bii nga dégg ko sa jàpp ko mu yéwénal sa biir yi addina yéwénal sa biir yi àllaaxira maa ngi ñaan nag yéen ñi nekk ci bitim réew itam yàlla may leen jàmm may yàlla def na ak ni jii seen soo xam ne soo amaat yi dana leen jokkale jagaaje ji fa ak tay sila ak jiw jógal naa bépp taalibe bu ko jegoon ku fa mën a itam naa nga dem fu nga naaw ci ñuy sala too fa doon di tuba dem maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di leen xamal na ni ñu déglu leen tuuti déglu leen xamal na ni ñu yow ci noonu leen sëñ ci wax sëñ ci nit ci moom dara léppam moo ko moom léppam moo ko yor mën naa leen ci jox ci nit ci saa bopp tey waat na ci yàlla fii na toog loolu ñu si jaay loolu ñu xaw bi loolu ñu wax ñu leen jël màgg amul waaye ñu si jëloon tey nag ginnaaw bu waxtaan yi àggee nag am li ma leen di seereel nag seere si moo di sama bokk ci kilifa yi diine yëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ngir jëm kilifa diine gu ne sa ndawal bopp mosu si rëpp ci yow teew na fi te loolu lu rëy ci man la lu sori ci man la amal naa liñ ci ci xeeti cant loo xam ne sama lamiñ ni ñu ko wax waaye yàlla mi nga xam ne këliwut dara te moo mën lépp kenn ci ñoom ku ne yàlla na ko defal lu kawe ak bëggam ma kawe kawe kawe kawe xalaatam ci dara jëy Sëriñ Tuubaa ñu ñu yaakaar li ñu ñoom yal na yàlla yéwénal seen biir te defal leen li ñu bëgg ndax lépp loo xam ne lii nekk nañ ci rek nekk nañ nekk nañ caag ñun ba won nu ne benn lañu kon noo ngi sant yàlla di leen sant di leen gërëm di leen ko seeraloo jërëjëf.
mbokk taalibe yi nu dikk leen fi waxtaan woo xam ne mooy ndigal li Cheikh Abdoul Ahad Mbacké njëkk a joxe ci liggéeyu yokk jumaay Touba mu wax ko nag ci bisub àllarba yemoo fukki fan ak juróom-benn ci weeru gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer. ak juróom-ñaari at ci ati gàddaay yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sallam dëppoo 18 novembre 1986 miladiya muy wax ju gàtt te am njëriñ lool kon nag nañu ko déglu te jëriñoo ko
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah sama dellu si tey nag beesuut li ma waxoon keroog ci màggal gi ci solay jumaa ji ci luñ ci war a yokk moom laa bëgg a teqantal leeral leen ko ni ma ko xalaate yaakaar naa ne liñ ci war a dolli buñ ko ci doolee ba noppi ñu niiw niiw niiw ñaari junni nit dana ci mën a dolliku ci ñu ci daa julli gannaaw bu loolu wéyee it dafay ànd ak melow jumaa ji ci biir ci lépp kenn yu jumaa ji am daf koy am te ñoo koy ànd décoré bi ci kaw it daf koy am dafay amit ci kaw ay xubba yoo xam ne ci biir lay féete te du am xubba ci kaw gannaaw bu loolu wéyee it dana am ventilateur gannaaw bu loolu wéyee it dana am rajo dana am làmp loo loo xam ne day ànd ak loolu jumaa ji te lépp wetu ndeyjoor gi nag lay doon ak wetu càmmoñ ji ak soowu bi loolu nag moom laa leen di fàttali ne leen sama yitte jëpp jëmi naa ko ci suñu yittee it duñ mboolem ku yaakaar Sëriñ Tuubaa li ma jotagoon am nag def naa ko ci muy téeméeri million fas naa yéene it sama liggéey bu àggee lépp ci laa koy def mu nit liggéey ngir sëriñ Tuubaa ba teg ko ci sama loxo it ci laa koy def maa ngi koy yëgal ñëpp nag gannaaw bu loolu wéyee nag ma di leen xamal ne liggéeyal sëriñ Tuubaa rek la nu war a def mooy sunu waru gar ngir danoo amul lenn lenn lenn lu nu mën a teg sunu loxo lu dul yaakaar sëriñ Tuubaa ak gëm ko ak wóolu ko ak yaakaar ko ak topp kon nag lépp lu jëm ci ak wàllam rek moo war di suñu liggéey ci lañu war a jéem suñu gëm te ma yëgal leen nag lëf loo xam ne na leen leer Sëriñ Tuubaa moom mbirum boppam leeralal nañu ko ba mu leer na ñi wax na ne addina ñu su koo tax a xëy ñu su koo tax a gont ñu su koo tax a rañaan ñu su koo tax a jóg yenn waxtu bépp bu ma see jóg rek ak lépp lu mu doon defante yàlla it lenn la doon wut ci moom te loola am na ko loola bis benn ci bala ko soxla lu ngeen gis ci mbiram ci àddina lu leen yéen yéen ak lu réeréer yéen ndab lu ñu doon bii mu feex ba xajatu sa tuur la ca tuur rek mooy li li ma ne sa gis fii waaye la taxam ñu bii ndab la moom ma nga ak borom ndab nee na nag lenn la doon wut te am na ko loola moo di yowmal xiyaamati bu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ne cëpp fekk nit ak jinne ak malaayika kenn du ko wutee mu wax lan bi yow ak mursalin yi ni leen féeti leen ma fii ngir yéen fu ngeen jaar alquran wax na ma ko daal di wax sahaaba yi yéen féeti leen ma fii ngir yéen maag yéen noo àndoon daal di wëlbatiku ci ñi nga xam nag ne dañ leen dénkoon jamono kenn ku nekk am àndaar joo war a duy ba mu buur mooy leen jóg leen natt seeni àndaar ba xam da ngeen buural wala déet képp ku ci sa àndaar buur mu yëkkati la nit ak jinne ak malaayika ñëpp di la gis mu di la gërëm di la gërëm ba ñëpp yëg ne gërëm na la mun a wax laa tegaat ci bu la bu sa àndaar buur mu yëkkati la di la tànc di la tànc di la tànc ba nga ne ko kersa jii suturaalan ma te yóbbu ma sawaraa ma ko gërëm mu door laa bàyyi ñooñu nag bu bu yonent bi dee defante ñoom noonu ba yegsi ci moom dafa bëgg moom ñi ko yaakaar di jóg di def la ñoo nee doon def di def la ñoo nee doon def ba ñu ne moo ana ci nga xam ne bi ñu jaaree ci aw turam ak léegi waa këram a jóg di def jëf ji ci moom jógagul tur woowu baat boobu dong lu ma masa sonn nee na moom la du wut te ne am na ko ba noppi ku bokkul ci ñekk ko amal nag ne féeti woo ko fenn kon nag war nañoo am ngor war nañoo góorgóorlu ndax yaa ngi ju dee si teral di teral nañu ko li man lu dee si dimbali dimbali nañu ko kon nag nan sax ba bis boobu nga xam ne moom doo ngay bisam bu ñu leen am sa ndam te dara mënuñu koo may damay bañ koo boole dara suñu lépp ñu jox ko ko saa yéene ko bàyyi. liggéey bi nag bala ñu koo tàmbali muy ragab te ñu teg xeer bi ah danañu ko defaral benn matière boo xam ne ku ku ñëw danga danga mën a xam ñu muy mel dootoo ci la dootoo ci la laajte dara ragab nag la ñu ko fas yéene teg xeer bu njëkk bi. kon nag digal naa mboolem ku yaakaar Serigne Touba te di taalibi Serigne Touba bu yaakaar Serigne Touba nga yëg ne liggéeyu Serigne Touba daal jóg na néew ma kenn nag doxama ci nangam waaye lu ci waay am digal naa ko mu def ko ci lu ci waay man digal naa mu def ko te yëg ne moom Serigne Touba mbiru xaalis bi nga xam ne moo ko war a liggéey nag milliard la ak genn wàll loolu it mooy li nga xam ne bu liñ ci war a def lépp bu sëkki defee mooy war a doon dëgg loolu nag it ma xamalaale leen ko maa ngi leen di gërëm nag di leen nuyu di leen sant di ñaan nag yàlla ak Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne suñu lépp ci moom la aju ñu yéwénal suñu lépp tey yéwénal suñu lépp ëllëg dimbalu nu ba lépp ndam lu nu soxlaa am ci moom tey noo am ko ndam lu nu soxlaa am ci moom ëllëg nu am ko te kenn bañ noo gañe ci moom ngir moom day jome boppam ak fullay boppam may na ko ñu àndoon ak rasulullahi gañewuñ ko ci ginnaaw ñu àndoon ak rasulullahi gañewuñ ko ci te diggam ak rasulullahi di at yu bari yu kenn xamut te ñun suñu diggante ak moom di bëri ci démb dong ñu àndoon ak moom bu ñu noo gañee ci moom sunu jom moo des waaye nag nanu am jom ba kenn bañ noo gañe ci moom te ku nu mën a gañe ci moom nu fexe ba gañe ci moom saahiran wa baatina assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di ñaanal nag yàlla yéwénal seen lépp nag saahir ak baatin te boole nu taxaw ba dara bañ a yàqu ajina yàlla leen
ba tey nu dellooti dikkee leen ba tey waxtaan wi nga xam ne sëriñ Abdoulaye moo ko waxtaane ci tegu xeeru yokku jumaay Touba mi ngi yemook àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab ci atam junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñaar ci ati gàddaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam tolloog fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 1987 miladi
ak leen suuf te déglu asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu maa ngi leen di nuyu yéen bokki taaji bi yëpp di leen sant di leen gërëm bëgg a waxtaan ak yéen rek tuuti ci li nga xam ne ci jamonoy magal bi waxoon nañu ko fi bëgg nu yokk jumaa ji te ma waxoon képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa lépp loo mën nañ ko ci def ma bëgg xamal leen nag liggéey bi ñu ñu wax ne ne lay toll ñu mu demee it lépp ma leeral leen ko bisu tey bi bala ma leen ko wax nag Sëriñ Tuubaa mi tax ma di leen woo di leen sant lu jëm ci moom lay jëkk tàmbale suma waxtaan ak moom suma waxtaan ci moom ba noppi Sëriñ Tuubaa moom rek la noonu jëmm li joo xam ne dañuy di siyee amul lan lu muy def lu dul dafa raar ne kat yi rek ci boromam ànd ak yonent bi téye ko def ko wóoru wóor ngir wasax ci ci rabbil arsi ci jóodi wal afi ma al mustafa loolu la wax dellu ne wasaxtu ma al muxtaari billahi wahdahu wane ne ñëmb na ci yonent bi ci yàlla ànd ak yonent bi ci delluwu ci kenn bi mu defee loolu ba noppi nag la door a def nag li ñuy wax engagé engagé mooy lu dugg te dootoo génn wala ci xadiman la daal di wax suñ ci gay yi ci boobu yoon duñ ko mu delloot ne wala ci xadiman suñ ci gay yi moo amadan gën a ci engagé loolee nag ba mu ko defee boolewuñu yàlla ak yonent bi ak dara ba dem ba yegg nag ci ba yegg ci li bi ñëwi seen yi max fu aaj yi ugi sët yi xamaaxaa ileen yi kon wóor na leen jëng ne moom waxu boppam taxut de si leen woo di ci sant dara su ne waxu bopp rek tax muy wax dem na ba yegg ci abaytani bi rasulillahi ya maliki aslahtu kulli ila islami aqdami loolu ko dem ba yegg ci mën a wax loolu kenn wootewul ngir ku yëwénal sa biir wala ngir lenn boo gisee may woote daal li wax li ko waral moo di li mu wax moo di hadiyatullahi bihi saaxat li xayrillahi wa yawma billahi bihi man saahu wa fi xabi loolu doo nga tax wax gi mu wax ne dana yàlla dana dimbali ku ko soob ci moom tey ak ëllëg loolu doo nga tax ma di wàcc ñu sóobu ci liggéey bi moom nag liggéey bi mu liggéey ba ñun ñëpp ñu dugg ci biir liggéey bi di ci jariñu ba mu ko tàmbalee ba tere ba wujjee boroomam wàcc ko ak yonent bi ak yàlla maa ngi leen di laaj nag ba xam liggéeyam boobu mu doon liggéey ci wóor gi ñëpp ne ku ko dajale woon fekk ci oto dina ko ci bërigo dana ko gis dem te kenn waxu ko ci ma di leen laaj ba xam am na ci yenn bayit bu ko di àggale leen dé bon mu leer leen ne lépp rek moom gis naa nag ne dem bi ngeen dem sëñ Tuubaa lu wér la doyloo gi ngeen ko doyloo lu wér la jàpp gi ngeen ko jàpp lu wér la li ma ko xamee nag danaa leen ko wax damaa gisagul ci benn murid bi ci ñëw ci sabab mbirum àllaaxira ku ma ci gisee mbirum àddina ngay wax te lax bi ngeen laf àllaaxira jàpp ne lu ngeen di siit di ngeen ko fa gis lu ngeen di jàpp di ngeen ko fa gis ngir seen Tuubaa loolu da nga ko waral kon nag liggéey bi ba ma koy tàmbali dama leen a waxoon ne def naa ci téeméeri million léegi tey faf ju ju ñu million nekk na fi am na benn tool bi ne bu bu ko wax ne daf koy mottali kon nag ngeen yëg ne junni million ak juróomi juróomi téeméeri million yi ñu leen waxoon jeex na ma di leen yëgal nag ñu leen Sëriñ Tuubaa lu mu bëgg rek mais nii lay amee dana xëy benn bis daal di xëy ji dama bëgg ku ma bindal ak kaamil bu sotti mbooloo mi daal koy séddoo bind kaamil bi mu sotti dana taxaw si barab ne tey ji ne nga jàngal si téeméeri kaamil ñu daal di ko fay jàng fa saas ñu ci santaane lu jëm ëllëg kon nag ngeen ñu wóor leen ni liggéey bi àgg na ba noppi dara lu ci dee ci waxati amatu loolu mu leer leen bu ñu leen bu ñu leen leeree ba noppi nag moo wala bëtt nañu gërëmaat leen sant leen nuyu leen yégal leen nag ci màggal bi am na lu ma leen ci waxoon ci lay dellu seen waxoon naa leen ñu leen parcera Abdou Diouf sunu jàpp la sunu jàppale la te loolu lu wér la loolu maa ngi leen ci gën a seddali tey nag ngir ay kilifa ji toog ñu sës rëkk ci moom bàyyi ko ci jëw ngir fekke suñu bis bi kat moo leen tax a jóg te kilifa yi kenn ci moo mooy ministère Madou Fall kenn ci mooy ministère l'intérieur kenn ci mooy ministère bi yor xaalis yi kenn ci mooy ministère bi yor ndox mi ak ndawal assemblée li ànd ak ñoom nekk leen loolu nag dañu leen ko am nag ngir nga def ci jabar bi nga ne dana jege sa mbir ma ñëw la dullal la kon nag ngeen xam ne jàppal na ñu nañu ko jàpp te jàppale ko ci buñ dëdd suñu ndax ñun kat képp ku jàpp sëñ Tuubaa rek ñu war laa jàpp suñu yaari loxo noonu jàpp ci sëñ Tuubaa rek mu aw ma ci li may lakk kenn ndax lu leer la jëfee ko kon nag yéen ñëpp yëg leen ne jàpp nañu ko te duñu ko bàyyi digal ñu leen gën jàpp daal di sëñ Tuubaa yi nag maa ngi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di xamal ne sëñ Tuubaa rek la am nanu ngoy ci moom liggéey bu àgg nañ tàmbali beneen rek muy dem beneen dëkk jërëjëf jëf loolu dong laa doon woote kon nag man na maa may ñëpp ku nekk daal di galam ne ko
asalaamaaleykum wa rahmatullah waxtaan wi itam sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ni ko waxee ci Korite Touba bisub ajuma ci atam junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar min hijrati sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak yemoog ñaar fukki fan ak juróom-ñenent ci weeru mai 1987 miladiya nañu ko déglu bu baax te jëriñoo ko yéen bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi yéen bokki taalib yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ndokkeel ci bis bi di leen jégalu itam ci loo xam ne xam naa ko ak loo xam ne xamuma ko ci lu war bi sama diggante yéen ginnaaw bu ma leen gërëmee nag sant leen maa ngi leen di di ki rek as waxtaan ci tuuti soo xam ne ci yëpp ci fànn rek la jëm genn gi ñu ngi jëm ci waxtaan wi ñu fi doon wax ci wàllu jaayante lu ca juddoo lu am njëriñ loo xam ne lu mat a xam la ak diggante sëñ Tuubaa ak yàlla rek dolli ci as la ci xam la ak suñu diggante sëñ Tuubaa nag yetta yooyu rek la li nga xam nañ ne ñoo bàyyi ko ci wàllu jaayante yi te warees ko waxtaane ba mu gën a leer ndax lu nu amal njëriñ di caa bàyyi ko moo di suñu borom ba mu waxee ne istara minal mu'minina anfusahum dafa daal di wëlbatiku daal di xam ne ku jënd la fa moom yaa ko moom te sañ nga caa jaar la nga ci bëgg a def nga def ko mu daal di wàcce yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina loolu li mu ci jublu moo di ñu def li mu wax ba moom mu defal leen li mu leen wax ba mu ko defee nag ci lëf li yegsee te daal di am na ñoo xam ne dañoo waxtaan ak yeneen bi ñu ko daal ci sa biir yi bokk nga ne daal di xëyee ñu tëll ci seen kaw ci jël waxtaan ak ñoom loolu daal defee na ne ku ko mën a bañ a def moo gën nañu leen woo parteem ku nekk ñu sant la tuub boo ko defee fa lillaahi hamdu boo ko defut ñu daal lay laaj ci alal loo xam ne dañu yóbbu suufut mbaa ñu daal di laaj ci sa kaw ba mu ko defee Sidina Omar moom daal ne moom day loolu andu ci moom daal lu muy lu muy def mooy li yàlla santaane rek ci la mën a ànd ku ci jiitu mu topp ci ku ci jiituwul mu jàpp boppam bañ ko defee mbooloo ma daal gën a lëng ci lii ñu daal di woote ku yonent bi woo ba nga ñëw rek ñu sant la tuub nga ne ko man day mën a guma ko mu daal lay xamal na ñu la du lu mën a ñàkk wa illaa laaj naa la nangam lim boobee mu la wax nga daal koy wax awuma ko mu ne la bu ko waxati ba ngay jóge sa kër yaa ngi wax sa soxna ni ko denc bi ma denc fii bu ma demee ci jëlu siwle mooy la ma moom te loolu ëpp na lii ma la laaj su ko defee kooka daal di ko ne loolu day fekkee yoo ko woon kon nag tuuti na ñu yendoo loola yendoo loola yendoo loola ba ngoon su dinaa jur daal di ne cëpp nag dal di ne maa kaana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi تريدون هرى الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق كتاب جزم إلى المفرس لمسكم فيما أخذتم فيما حساب نسيم فكلوا مما خلنتم على عالم طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يونس بلاد من يوم كيف تنظم واحد دم بكي سيدنا عمر ذلك الحق معك ألا قم عمر يجيلو لكل فاروح جيجو كتو جيجلو لكل kon nag nekk ci dëgg bañ caa wéet ak wéet yi ak mu metti ak mu naqari moom la ñëpp war a yemale ngir lu ñu jóogan loolu faw lu lu war a leer la kon nag ñu itam bu ñu jaayantee Sëriñ Tuubaa te ni ni ni gaayu yonente bi defoon rek la ñu def an fu seewum wa am wayl moom la ñu ko jox li nu wuute mooy ñoom dañ leen a daal laaj ba tey ñu fi saa seet ñun suñu jë- suñu suñu jaayante jëm suñu jërub dund kon nag war na noo xam ne lenn lu nu moom amul nit lu mu jaay su yaakaar jot ci njëgg moo ma tuggum moo mënu suñuy bakkan moo mënu suñuy alal suñu lépp sëñ Tuuba ko loolu la leen wóor gannaaw bu loolu wéyee nag ngeen yëg ne sëñ Tuuba mi nu làqu ci gannaawam ku yàlla booleeg moom sant yàlla rek la war ngir moom day diggam ak yàlla yegg na ca ba noppi yeggale ca rek a ko dese yal na nu bokk ci njamu ci yeggale ndax wax na ne xaw si yëfi daara yi ma asaawu bi koy ñu yaxluqu ma yasaawu wax na ne siitu la si saa al ilaahu wal ilaaha yasaau ma siitu bilaa durrin wala koo xam ne nga sa diggante yegg na ci yàlla yegg na ci lu soob yàlla di sa coobare te bala laa dara soob di coobareel yàlla foofu mën na sa wees kon nag mu wóor ne ngëm nañ ci lu wóor jàpp nañ ci lu wóor ñu ngi ci teg nag sunu bakkan te yëg ne moom day dafa fekk mu sa dem ba mu ba ñu ñëwee fekk na ñu daa dee faa liggéeyal yàlla yàlla ak yonent bi ba bi mu ñëwee waaye nag des daa xëy liggéey ba bëccëg bu ngoonee nga gontu gontu bu mu ja bu bu guddee nga dem noppal loolu moo doon lig aw liggéey yi moom nag bi mu ñëwee dafa boole xëy ak gont ak njànq ak rañaan sob léppam jox ko kon nag noonu dong noonu war na itam lu mu def lu noonu defuñu lu ñu war a def gannaaw ba loolu wéyee nag ma sant leen gërëm leen ñaan yàlla nag mu dimbali ñu ñu taxaw nag ci liggéeyu ren yàlla ñaan yàlla mu barkeelal ñu ko ba yegg foo xam ne xalaatuñu ko woon ci dimbali ñu dimbaleel sewit ak lu bees mi te li ñu yaakaar ci sëñ Tuubaa di ko wut mu mu ngàbb ko teg ko ci suñu loxo liggéey bi ma doon wax ak yéen ci jumaa ji nag moom itam tàmbali nañu ko fukki weer ak juróom yett ci lay war a sotti loolu moo nekk ci contrat ba buñ ci yeggee jàmm leneen la des ci defati waaye googu wàll dana féete jërë ngeen jëf baal leen wax صفة جنرال كل مريض asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm gërëm lu yemul fenn di leen xamal nag ne daaw ci càttal baraxlu yi dama fee waxtaanoon ak yéen di leen xamal liggéey bu muy liggéeyal Serigne Touba ca këram ga ca Touba xamaloon leen ni leen danaa ko fa defal fukki néeg ak juróom ak saal bu rëy xamaloon xamaloon leen ni ni leen genn wàll gi ci li ñu ko war a liggéey joxe naa ko ndax lépp ñaari téeméeri million la fukk ma joxe woon téeméer ba ak juróom léegi liggéey ba sañ naa ne àgg na ngir dara di sëkk ca lu may kocc koccal seen taxawaay ak seen ngóora ak seen yitte lépp àggale na ko ma tàmbalee at fa nag beneen liggéey nag boo leen bëgg a yëgal dama fay defar lu am néeg boo xam ne juróom-ñetti koñ lay doon waa Italie yi ñoo koy defar bi ñu seetee li ñu leen war a fay lépp it téeméeri million la yu manqué juróom dawal naa leen juróom fukki million ba noppi fukki fan ak ñaar ci mars ci la ñu koy tàmbali war a tolloog benn fan ak rajab moom itam bu neexee yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi balaa màggal ga dana sotti ma di leen sant nag di leen gërëm di leen yëgal ni leen sëñ Tuubaa rekk la noonu liggéeyal ko rekk la nu war a def ngir sëñ Tuubaa moom dimbali nañu ba noppi taabat nufoosu man taxal la xoobiyaa dunyaa wa oxraa saaka fadlu rabbiyaa loolu moom ñun ñëpp tàbbi nañ ci biir ci ndimbal li kon nag mu def suñu warugar nuy itam xam ne li sëñ Tuubaa yor te mu am njëriñ mais di jëriñ it addina di ko jëriñ àllaaxira defut lu dee si for defut lu dee si sàcc aw ñaq rek ko mën a jox nit ngir moom day li mu am du ma ko daasaa am wax na ne am na juróom-yaari at yoo xam ne juróom-yaar yi gisu ci lenn gisul góor gisul jigéen gisul mag gisul ndaw dara lu mu moom nekkul ci loxoom du addiyee ju ñu ko jox du sarax bu ñu ko jox ku jaar foofu ba jàll nag la nga ci jëli ku ca soxla dafa war a fas yéene moom itam teg ba kanam la mu attan ak lu mu àddanu ngir am ca lu am njariñ loolee loo xam ne lii càkkutéefu boppam ak ngóoru boppam moo ko ko may kon nag ma di leen yëgal ni leen góorgóorlu rek a nu war ak jéem a xam nag bu baax a baax a baax sëñ Tuubaa mi nu yaakaar lu dul moom nan lañu war a jëfal jëfalanteeg moom nan lañu war a jëfalanteeg moom mooy nan moo di nanu fas yéene jub xoj te wér cëng te suñu pësteef dëggu bu ko defee suñu yaakaar ci moom ak suñu bëgg ci moom ak suñu jublu ko lépp dana àgg may nu la nu bëgg moom nag jëmmale joo xam ne ji yaakaar ko rek la waree sa def topp ko la waree sa def waaye fexeel ko mënee su ko fiir ko itam fenn ba jàpp ko furul liggéeyal ko kenn mënu ko ngir nee na boo baree fiir mi ngi mel ni gumba goo xam ne dafa dem ci jetti bi arin di fi fiir njaccaar bu defaree ak fiiram ba mu yekk fi moom mu dem fëri nag di déglu ba xam fiir gi jàppagul nam jàppagu njaccaar la du def dara lu may day fa fiir ga dem ba yegg fa gumba ga ne yoo ak ndànk tegal ko ko ci diggante ñaari tànkam bu waxee ab tànkam rek fiir ga jàpp koo xam nag ne te lépp noonu la demee nan góorgóorlu ci li nga xam ne bu nu ci nekkee rek njariñ yi mu yor te muy jariñi àddina di jariñi àllaaxira dana nu ci am ba doyal léegi nag liggéey bi yëgal gi ma leen ko yëgal dafay loo xam ne danoo bokk kilifa ànd jëm fa kon nag lépp lu may yëngal te mu jëm ci kilifa yi war naa ko yëgal taalibe yëpp ndax li ngeen di jëflante ak man te waxuma leen ko santuma leen ko te sëñ Tuubaa rek tax ngeen di ko def loolu def na lu ne loolu sëñ Tuubaa bii nga xam ne ci la nekk nag di ci xëy di ci gont muy yoon wi bëgg naa ngeen yëg ne sëriñ Tuubaa wax na ne ñàkk bi mu koy ñàkk àgg na lépp lu ci li ñu séenati muy yëngu it lu rëy rëy rëy ne leen wóor ne pënd la te pënd du ñaay ab tool kon nag ku nekk ci gannaaw Serigne Touba war ngaa am jom war ngaa am fulla war ngaa am woy liggéey bi nag la ma leen ci waxoon daaw mooy sama waxe rek lu waaye am te jox ma ko danaa ko ko ci defal ni ma ciy defee li ma am noo ngi sant yàlla nag di ko ñaan mu dimbalinu yërëmu suturaal nu yéwénal suñu biri addina yéwénal suñu biri alaxira ni nu toppee sëñ Tuuba yaakaare ko nii mu may nu ci ak way ak ku góorgóorlu ballu nu yaakaar ci moom lépp nu laq képp ku ko yaakaar la nga yaakaar nga teg ci sa loxo tey teg ci sa loxo ëllëg jaay xadim ñu seeti maxdum rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi tey jii dafa am lu ma bëgg a waxtaan yi yéen waxtaan bi nag ci tuubaa ji ni nag mbiram la jëm ak soppiku dafa fee am bu ma bëgg ñëpp xamandoo ko kenn bañ ko natable soppiku bi moo di ñaan nanu fi ba ñu may nu ko brigade gendarmerie boo xam ne day nekk ci biir dëkk bi ci dana mat fanweeri gendarme ci biir loolu nag la bëgg ngeen yëg ni li ñu fi daan cere ci loo xam ne yàlla bañ na ko ci xeeti po ak xeeti mooy yàlla ak xeeti lépp te ji leen ko gën a tere bu loolu jàllee itam nag ma xamal leen ni leen lépp loo xam ne luwaay nguur gi tere na ko tere nañu ko fii képp ku ko fii jëf itam muy foroot ak lu demee ni moom lu mu doon ak foo ko mën a rawee andi ko ci biir dëkk bi na nga yëg ni ndawi nguur gaa gi fi dali ci war danañu ko def te dootoo ko seq kenn ku dul ñoom foroot bi tere nañu ko fii tere nañu fi lépp loo xam ne luwaay nguur gi tere na ko loolu loolu islaam tere nag moom naka jekk nu di ko tere gën nañu ko fee tere loolu laa bëgg ñëpp yëg ko mu bañ a bett kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokki taalibe yi ñu del déglu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci waxtaan yi mu def Korite Touba bisub altine atam junni ak ñeenti téeméer ak juróom benn at min hijrati yi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama taslima dëppoog juróom ñeenti fan ci juróom benneelu weeri at mi atam junni ak juróom ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn ci ati juddub Seydina Isa alayhi salaam
assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk yi ginnaaw bi ma leen nuyu sant leen gërëm leen ndokkee leen ci bis bii nga xam ne bis bu mag la ñu bàyyi ko ci weer bu mag maa ngi leen di nuyu nag bu baax di leen gërëm di leen yëgal na nag sunu waxtaanu tey moom ci yent yëf la war a jëm benn bi moo di gëm yàlla ak sarti gëm yàlla ñaareel bi mooy jaayante ak sa sarti jaayante ñetteel bi mooy jub ñeenteel bi itam mooy liggéey gëm nag dafay def loo xam ne ku mu nekk ci yow tey dëgg ci yow ñàkk a teg sa bët ci lëf bu tax nga mën koo waat ci waatukaay yépp gëm nag am na juróom yoo xam ne bis mu ne daanoo ko di seere sax waaye dafa soxla waa juróom yooyu ñu mën koo waat gëm ko gëm gu wóor ngeen ku ci nattab leen lenn rek wala nga sikki sàkk ci lenn gëm moom amatoo ko juróom yi mooy lan wa anna la si jaa bihi muhammadun xaqun wa anna al jannata xaqun wa anna naara xaqun wa anna saahata aatiyatun laa rayba fiha wa anna allaha yabaasu man fil xubóori juróom yi moom loo ci sikki sàkk rek amatoo gëm boo ko sar boo sàmmee sa gëm nag ba gëm ju wér ba noppi nag li ab jullit war a daa ngay doon jullit li jullit war a def nag am la ñu bëgg nag mooy xad aflaha mu'minuun allasiina hum fi salaatihim xaasimoon wallasiina hum ani laxwi muhriloon wallasiina hum li sakkaati faahiloon wallasiina hum li furuujihim xaafisoon ba yegg ci allasiina yarisoon al firdawsa hum fiihaa xaalidoon loolu mooy sartu ab jullit ci bopp boo matalee loolu rafetal ko sa jullit mat na sëb dëgg wér na Sëriñ Tuubaa nag bu dee wax ne aw na ab tariixa damaa fekk yoon bi yonente bi àndoon ak saaba yi jaar ca mu xaw a farkay moom ko jikko ba mu seet wecc defaraat ko ba mu leer nañ wax ne ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngi yoon woowu mooy yooyu yoonu jaayante ngir kat saaba yi ñoom ba ba ñu saxee ci yii nga xam ne mooy mooy tax mooy sar si gëm bu mu wér cim dañoo wëlbati ko wax ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ni ko li ñu bëgg daal léegi tey mooy jaayante yow jox la suñuy bakkan jox la suñuy alal nga warlu ne daanu dem ajjan loolu ba mu ko defee mu ne leen man day mënumaa tontu ci loolu sunu borom a amee tontu li sunu borom daal di tontu ne inna allaha istara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al jannata yuqatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waxdan alayhi xaqan fi tawrati wal injili wal quran yi dal cay teg ne nag wa man awfa bi ahdihi min allahi loolu kon dugal nañu ci biir daal di daal door a wax nag ne fastabshiroo bi bañikum llazi baayatum bihi dégg leen ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen ko ngir mooy wasaaliku wal fawzul aziim door a wax ne laqad radiya llaahu anil mu'miniina iz yubaayi'uunaka tahta shajarati kon loolu mu wóor leen ci ne jaayante gi lu am njëriñ la lu wóor la lu am maanaa la loolu di ci ne wa saabiquuna lawaloona min al muajirina wal ansari ba mu leen tuddee ba nag la mu leen war a añale ba mu ko daataa wax dafa wax wala si nag tabaxahum bi insaanin añ ba doori di ci dira lee la wax ñu war a loo andu kon nag jaayante lu am la lu wër la jaayante na nag sëñ Tuubaa kon nanu xam ne moomam sunu bakkan moomam sunu alal am na nag taw feex nag am na nag taw feex nag akum noflaay ci kaw nag li nga xamante ne bakkan yi moom laa di deret yi te bu laajante deret yi bis bu nu sotti nu sotti ko waaye nag ginnaaw ñaq yi rek la laaj ak alal bi sunu alal moo ko moom sunu bakkan moo ko moom loolu la li wóor jël nga ñëw ci wàllu jub jub moom dafay loo xam ne dafa mat a góorgóorlu ngir kenn da koy defalul kenn ku ne sa bopp rek nga koy defal alxuraan yàlla wàcce na ko ci yonante bi waaye ci nit ñi rek la jëm inaa anzalnaa alayka alkitaaba linnaasi bil haqqi daal ciy teg nañ fa man ihtada fa li nafsihi wa man dalla fa innamaa yadillu alayha wa maa anta alayhim bi wakiil kon nag nan góorgóorlu ci jub te xam ne suñu bopp la ñuy jubal bu ñu bañee jub it suñu bopp rek la ñu koy teg foofu jub rek am njëriñ ñu des ci liggéey nag liggéey moom day loo xam ne moo yor lépp ku ne la ngay liggéeyal ci la sa lépp di bàyyi ko la ngay liggéeyal yàlla la ngay liggéeyal addina la ngay liggéeyal keneen ñi nga xam ne sax yóbbu ñu ci di liggéeyal yàlla seen bopp la ñuy liggéeyal kenn ku ci ne sam adresse mooy la ngay liggéeyal fa lay liggéeyal ak nag ak lu mu doon kon nag liggéey rek am solo nan góorgóorlu ci liggéey nga xam ne liggéey bi kenn kon la la yàlla féete féetale muy sa liggéey nga sellal ko jubal ko rafetal ko moo ciy sa ndimbal ñun ñi nga xam ne bay ak yooyu mooy suñu liggéey nan fas yéene li yàlla santaane ci mbay ñu di ko def dina asaka di def lu leer ci suñu liggéey ñu yees leneen itam ñu sàmm loolu loolu bu ñu ko defee suñu tey dana leer suñu ëllëg dana leer jërëjëf jëf maa ngi dellu nag di ñaan yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak sëñ Tuubaa mi ñu wéeru ci moom te yaakaar ñu dara lu dul mën mu yëwénal suñu juri addina yëwénal suñu juri àllaaxira te atte ni ci yërmande moom dimbalam nag te bañ noo atte ci suñu ñëw doole ak suñu càggante jërëgéen jëf yal na yàlla nag def neer naataan yal na yàlla def xéewal bu tasaaroo ci addina sëpp ba bakar tuxu si naataange sax yi ak xéewal sax si te ñu musal ñu nag ci lépp lu jur ak dal saahira boo baatinan jërëgéen jëf jërëjëf
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk taal bi ñu dellu déglu waxtaanu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi mu def jëbat ci Touba di ci jibéer atam junni ak ñeent téeméer ak juróom-benn at dëpp fukki fan ak juróom-ñaar ci juróom-ñetteelu weeru at mi ati miladiya muy 1986 ñu déglu ko ci ànd ci ak teewlu
assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di ndokkeel ci bisum maa ngi leen di balu ak bëgg suñu waxtaan tey bañ a weesu yaari yëf rek sant yàlla bu mu wóor a wóor a wóor ak bañ a naa bu yërmande wenn waxtu di ko seen waxtu wu ne suñu borom bu dee wax ni laa taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru sunuba jamian bu ko dee wax bakkaar bi ñu tuuba tax mu di ko wax ndax bakkaar bi ñu tuuba moom mbind la moo xam ne tuub rek ko fa mën a fare kon nag loolu war naa waral ñu sax dakk ci di tuub te gis naa ne ñun doomu aadama li ëpp ci ñun suñu tuubaree ba suñu tuuba laa wóor rek mbate mu jàqee waaye kon lu nu war a saxal la ngir ci njàqare la nu dëkk jéeg la xat xalaq naa leen saana fii kabari loolu suñu borom wax gannaaw bu loolu itam mu leer leen ni yàlla moom ba mu ne allahu yafalu ma yuridu rek la nabbi ci lépp kon nag waxu wala si bi ngeen gis rek la ca topp jenn doomu aadama mënu ko yàlla rek ko mën kon nag bu waxee ne waxu wala si yun nasirul xaysta min ba'di ma xanatu wa yansuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu amit dana wàcce ndox ci ginnaaw boo xamante ne naagu ngeen ko ba noppi nag tasaari yërmandeem kon bu kenn sàkk nag loo defee ne foofu la yàlla wala jaarale lenn fu mu jaar rek fa la noonu maa si ci sant nag te maa si ci seenu yërmande yàlla mooy suñu ndimbal te dëkk ci duub yal na nu yàlla jéggal yal na nu yàlla dimbali yal na nu yàlla suturaal yal na nu yàlla musal yal na nu yàlla saxal ci sëñ Tuubaa nu yow ci ndigalam génn ci ak tereem saahiran wa baatina wasalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu
bokk taal bi lu dellu déglu te boole ko teewlu gu mat sëkk ci waxtaan wi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxtaane taalibe yi ci màggalu Touba yemoo alxames fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar atum junni ak ñeent téeméer ak juróom-ñaari at min hijratihi sallallahu taala alayhi wa sallam dëpp ñaar fukki fan ak ñett ci fukkeelu weeru atum milaadiya 1986 muy atu juddub Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam ñu faal ak kilifa yi nga àndal yëpp ñu di ay ministre ñu yow ak ñi nga xam ne duñu ay ministre maa ngi leen di delloo nuyoo di leen sant di leen gërëm di gërëm lool nag président ak bi nga xam ne tànn na leen yebal si leen fi ci sunu xew-xew bi te fekk ngeen di ay xarit ci kër gi ñu wóor ci nit ñi bu xewlee nga tànn ay xaritam yebal ko ci wan wan wan nga ko ne defoo naa la li ngay def ànd naa ci loolu nag dana nuyoo bi dama leen di yóbbante yóbbante boo xam ne wax bu gàtt sax lay doon waaye ji kenn ñu nag lay doon xanaa loolu leen na ko ne ko ñun de gërëm nañu ko gërëm yi ñu gën jëfe na njëf jox na jàpp ba nga xam ne jàpp nañu ñu jàppale nu ba nga xam ne jàppale nañu kon ñu ko wóor jàppale na ko jàppale nañu ko te lii ma wax dara rek ko dindi lan la ko mën a dindi de te fooguñu ko maa di jàpp gi ngeen jàpp ñu dolli ci gannaaw dana xam bu baax a baax ne jàppaguñu wa illaa jàppale gi ñu dolli ci gannaaw ba nguur ñu ci ne jàppaleekuñu te boobaa itam dina ko xaw a kuréel dina ko xaw a mar li yàlla santaan rek la ñuy def inna allaha la yuxayiru maa bi xawmin xata yuxayiru maa bi anfusihim yàlla du sopp ci diggante nag benn jaam ndax du jaam baa sopp ci kanam jàppante ne yàlla rek fii ma yëg ak yéen ci ay wax nag